te comme ça nga euh, commencer ak moom si say euh, euh, question hmm. waaw jërëjëf soxna Rama sans plus tarder vraiment dañuy ànd suñu invité rek hmm. xuus maanaam si li nga xamante ni actualité politique bi hmm. donc récemment donc Malal donc dañu remarqué quand même au Sénégal la tension politique est en effervescence donc vraiment ñu ngi gis fu ne ay jàpp Euh, des arrestations qui qui se multiplient mais dañoo gis aussi euh, c'est comme s'il y avait un ciblage euh, au niveau du parti Pastef yi nga xamante ni jàpp nañu quand même pas mal de militants et de responsables donc euh, yow qu'est-ce que cette situation là vous inspire sachant que vraiment activiste bi nga doon euh, xeex bi nga doon xeex euh, dans les années deux mille deux mille un deux mille deux mille onze deux mille déjà ñu ràññee la si et que presque on dirait que l'histoire se répète les vagues d'arrestation continuent de plus belle avec voilà avec le régime de Macky Sall. yes kontaan si question bi question en fait li xew mooy on est dans. un processus ou bien même dans la judiciarisation de l'espace public judiciarisation de l'espace public mooy ci wolof mm-hmm. mooy ku yëngu rek ñu boole la ak yoon ci loo xamante ne xëy na munoon na ñàkk te loolu liñ ci seetlu également dafa mel ni du ñëpp ci yem ci kanamu yoon dañuy tànn ay militants Pastef mhm. pour la plus pour la plupart ak ay activistes yu mel ni ay Karim Xurum Xaq yu mel ne ay euh, Cheikh Oumar Diagne yu mel ni ñeneen ak ñeneen kii se sur des questions yoo xamante ne nit ñi war nañ ci wax ñu wax ci am nuñ ci waxee ñu jàpp leen loolu nag li muy wundu li muy wone mooy dañu nekk ci en fait il y a dafa am lu bees lu tudd délit d'opinion maanaam léegi wax délit la wax sa xalaat délit la loolu nag bu amee dafay indi la restriction de libertés d'expression te bu ñu restreindre liberté d'expression maanaam bu ñu bëggee tënk nit ñi ci seen xalaat di leen tànnal lu ñu war a wax loolu dafay nasaxal démocratie te démocratie Sénégal dafa yàgg ak moom depuis soixante. Mhm. ñu am président depuis soixante ñu am président Senghor di doxal ba Abdou Diouf wuutu ko et cetera après ñu dem ci ay élections plusieurs fois et cetera ñu koy xeex sénégalais yi dañu yàgg xeex pour moom seen bopp wax seen xalaat depuis les depuis les indépendances. loolu nag ay génération génération wu généra ay plusieurs générations ñoo mën a xeex yooyu. mais. ñu seetlu ñu ñu seetlu lu ñu seetlu la sous Macky bu ñuy xool rek simplement les personnes qui sont arrêtées et les raisons pour lesquelles ils sont arrêtés dafa mel ni effectivement c'est des arrestations non seulement arbitraires mais aussi des arrestations ciblées loolu baaxul ci démocratie loolu nag mooy jur tension mm-hmm. parce que ñi ñuy jàpp di leen yóbbu situation ak conditions yi leen di jàppee ak li tax ñu jàpp leen am na ñeneen ñu fare ci beneen boor di wax lu mel noonu mhm. et ils ne sont pas du tout inquiétés donc loolu dafay joxe une justice à deux vitesses te li bees liñ ciy dugal li ñu war a seetlu souvent dafa mel ni dañu bëgg ëffal magistrat yi ak population yi parce que souvent dañu dañuy wax outrage à magistrat effectivement loolu dafa mel ni lu bees la mhm. su wàdd daawuñu ko gis su juuf xëy na daawuñu ko gis ou bien moins li ñuy seetlu mooy boo compter ci ay doomu aadama yu ñuy jàpp di leen tëj ak ay doomu aadama yu bëgg a dox doxu ñaxtu duñ ko mën a dox hmm. ci régime Macky Sall dafa mel ne loolu dafa dafa gën a am doole loolu nag moo indi tension bu indee tension mooy lan ñi ñuy jàpp di leen yóbbu gëmuñu ci yoon boobu ñu ñu leen di yóbbu wóoluwuñu yoon bi hmm. parce que bu doon loolu effectivement kuy dem procès doo soxla kenn gunge la li tax nit ñi di bëgg ku leen gunge c'est pour diir que effectivement la force oui restera à la loi effectivement mais la mobilisation restera au peuple parce que ku ci nekk dafa am ci loo yaakaar dafa mel ni état bi dafa jël justice moomeel ko mm-hmm. euh, def ko moomeelu boppam mm-hmm. ñeneen ñi aussi yaakaar ci askan bi nga xamante ne gëm na seen projet gëm na seen xalaat gëm na seen gis-gis mm-hmm. ñu gis ni loolu dafa tënk trop Sénégal donc justice socle la wéeruwaay wéeruwaay nag buñ demee bu mu mel ni dafa dafa yànq comme bëñ buy yëngu mm-hmm. effectivement mm-hmm. il faut que nit ñi buddi ko buddi bi mooy lan il faut mettre en place des institutions fortes qui na dépendent pas de l'exécutif par exemple tey boo amee justice boo xamante ne c'est à la commande perception boobu la ci nit ñi am bien muy yow di muy sénégalais yu bëri globalement perception boobu lañu ci am te perception boobu baaxul parce que dafay radicaliser nit ñi nit ñi dañ naan finalement je banalise la prison finalement aller en prison sax est devenu très normal ak activiste dëggantaan dafay jàpp ni buñ ko jàppul tey demul kaso il n'a pas véritablement accompli sa mission finalement on est dans la banalisation même de l'emprisonnement après da nga naan en fait nu mu demee mooy loolu quoi de toute façon ñun miis nañu genre affaire yu demee nii après nag mën nañu jural ay affrontement balaa mu ñuy jural balaa mu ñuy jural ay affrontement nag dafa am loo xamante ne dafay nekk di ko togg ci biir askan wi parce que askan wi seetlu rek la am léeg am na ñu ñuy xuus sax naan mais xanaa ay joolaa rek la ñuy jàpp mm-hmm. wala xanaa ñu bokk fii rek la ñuy jàpp xanaa ku sant nangam rek la ñuy jàpp mm-hmm. léegi nag bu ñu demee ba commencé foofu ñu ngi effectivement jëm ci loo xamante ne mën nañu yóbbu ci ay situation yi nga xamante ne sans précédent lay doon il faut que Macky Sall ak ñi mu àndal revienne un peu à la lucidité la lucidité mooy lan dañu hérité démocratie démocratie ñoo créé moo créé les conditions de son élection démocratie moo ko encadré mm-hmm. parce que su Wade il a été comme aujourd'hui les autres sont défendus par le peuple su Wade Macky a été très protégé par le peuple ci ñoom rek la yaakaaroon les éléments de langage de Macky Sall en 2012 sont les mêmes éléments de langage de l'opposition en 2021 2022 2023 mmh. donc il faut que ñu que ñu mettre au cœur ñu mettre au cœur de notre préoccupation tous les politiques doivent mettre au cœur de leur préoccupation mm-hmm. la démocratie parce que démocratie mooy le pouvoir au peuple c'est un pouvoir pour le peuple c'est un pouvoir par le peuple donc lépp dañ ko war a delloowaat peuple bi quoi li am ni kenn ci ñun warul seetaan muy am leneen aussi li muy li mu jur mhm. dafa mel ni il n'y a que deux camps du existe qui existent un camp qui se qui se rapporte au pouvoir et un autre camp qui se rapporte à l'opposition même booy xool du côté de l'opposition comme du côté du pouvoir on essaie d'étouffer les voies alternatives que nous sommes muy ay Y'en muy ay Karim kenn ñemeetul wax sa xalaat parce que opposition Macky ya sàll yóbbu na ko ci radicalité boo xamante ne même bu opposition defee lu dul yoon société civile wax ci société civile dañ koy tuddee effectivement neutre te neutre boobu opposition wala ñenn ñuy jàppale yenn candidats yi dañ ko jox benn sens bu péjoratif mhm. ce qui fait que certains des activistes quand ils veulent se prononcer sur certaines questions dootuñu amati fit mhm. on étouffe également leur parole on a deux camps yuy wax te ku ci nekk aussi tu utilises de temps en temps tu fais un peu dans la manipulation et cette manipulation finalement dafay dem ba askan wi réer ci mhm. après finalement il plus de débat sur l'essentiel les questions euh, yi nga xamante ne moo tax ñun ñu bëgguñu ci yiñ ñu war a gouverner muy justice di xëyu ndaw ñi mhm. di éducation des enfants protection des femmes et cetera yooyu yëpp dañ koy dañ koy occulter indi indi ñu ci sama candidat mhm. sama nit ki ma àndal kii moo mën kii kii mooy ku sell ki kii mooy ku baax kii Macky Sall Lamtoro Bour Guédé kenn du yow et cetera et cetera et les questions essentielles sont mises à côté sont mises à côté c'est pas bon pour une